Euh, xam nga pourquoi mu defoon polémique c'est bizarre encore une fois polémique la comme comme nature bii la rek kan moo ci def polémique euh, réforme de la justice ce sont les acteurs ñoo ko njëkk a réclamer je pense que dernière initiative bi fi amoon et c'était le professeur Isaac Yankoba Ndiaye moo ko dirigé woon en 2018 c'était le comité de réforme boo xam ni c'était en 2018 initié par le ministère de la justice avec la participation de tous les magistrats de tous les acteurs ils avaient un rapport CNRI convoqué woon nañ ko ñu génne ci rapport te ñoom ñëpp dans leur conclusion <clears throat> ils continuent à dire que c'est un secteur boo xam ni ça nécessite des réformes profondes c'est très c'est essentiel ba nga xamante ni ces petites polémiques yii ñu koy bëgg utiliser mu nar a jël le pas sur cette chose qui est extrêmement importante muy pouvoir judiciaire nan la ñuy garantir son indépendance boo laajee magistrat yépp ñu defal la constat ils vont vous dire que la justice n'est pas indépendante ñoom ñoo la koy waxal seen bopp à partir de certaines euh, mesures wala sa existence de certaines règles et principes ñoom seen bopp ñu wax la yow mi nekk <coughs> euh, usager du service public de la justice je ne pense pas que bu ñu la laajee est-ce que vous êtes satisfaite de la justice de votre pays di nga wax waaw parce que boo amee décision de justice déjà l'accès à la justice est très difficile boo amee elle est trop lente soo amee décision de justice kenn xamul kañ nga ci jot donc les dysfonctionnements de la justice ça dépasse ku nekk ci ñun dañ ko vivre dont les acteurs qui deviennent eux-mêmes victimes de la mauvaise image bi nga xam ni moom la justice am le président Bassirou Diomaye fay woote daal ni on va organiser un dialogue pour que définitivement définitivement tous ces mots diagnostiqués toutes ces réformes annoncées ñu consolider ko à partir de ce dialogue defar vraiment un proposer des réformes yoo xam ni day changer le visage de la justice justice dañ ne dafa indépendant ñëpp mais mais balaa ngay ñëw ci loolu dafa am ñu jàpp ne euh, on perd du temps 2017. Euh, ah. sous la bannière de l'UMS Souleymane Téliko am na document rapport boo xam ne defar nañu ko sur la réforme et la modernisation de la justice waaw ce rapport là ce document là il existe il waaw est-ce que pourquoi munuñu ko jël ñu matérialiser les recommandations de ce de ce de ce rapport là <coughs> beneen bi mhm. Macky Sall bi mu demandé ñu defal ko euh, étude mu def ko dans le cadre de la CNRI. Mhm. recommandation amoon na volet justice yeah. recommandation ya ñu fa defoon tamit <coughs> mu ngi fi rien n'empêche leur matérialisation je pense que comprendre assise yi ak euh, li mu teg gis nga documents yi yëpp ngay wax qui sont des documents de haute facture droit yoo xam ni le magistrat le juge Souleymane Téliko Téliko def na ko nee naa la bi mujj am 2018 c'était bu Isaac ba Ndiaye présidé lii c'est un plan global yee boo demee ce sont des proposition sectorielles soo demee ci yi ngay wax nii bii dañu ni la on veut non seulement réformer la justice dans ses fondements mooy concrétiser son indépendance réformer le conseil supérieur de la magistrature souvent yooyu nga ciy gis bii dafa ni la dafa transcender tous les problèmes ak dysfonctionnement yi ñu constaté ci justice c'est toute la chaine que ce soit les détentions lan lañ ci wax demal nga xool lan la ci lan lañ ci bind lii c'est beaucoup plus global englobant détention yi la réinsertion des des détenus la modernisation. Mais du ça ça existe déjà. non non non non. <laughs> Moi, la ré... non si il y une politique de réinsertion des. des des des yow moo tax man la rek ba ma pare di nga comprendre ndax débat li ma nar a wax nii am na sax même les opposants à ce dialogue ñu ñëw wax la xam nga nee naa la le débat s'est posé est-ce que. l'UMS euh, président da ciy toog wala du ci toog xam nga sa débat là est non tranché tey su ma nee la yow rapport yi ngay évoqué yëpp lan lañ ci wax qu'est-ce qu'ils en disent président day génn est-ce que génnuñu est-ce que ñëpp d'accord nañ ci est-ce que moom mooy lay seules méthodes pour garantir ñun dañu ni la ce qu'on veut cette fois-ci jël loolu nga xamante ni c'est une base très sérieuse d'études qui ont été faites mais lii on veut une chaîne mooy aussi bien réfléchir sur les euh, la privation de liberté le régime de la détention le système carcéral boo ko laalee di nga laal le statut des agents pénitentiaires ak li ñuy dund digitalisation totale du service de la justice nga xam ni demal laaj les greffiers ak leur situation nan la demee toute la chaîne lañ la wax la ñuy régler du ay sectoriel kese boo xam ne da ngay jël fii une mesurette daal di jëlaat fii une mesurette quelles sont les problématiques yi nga xam ni dañ ko war a càmbar tam c'est important sur l'indépendance de la justice donc la justice sénégalaise n'est pas indépendante. nee naa la ñoom ci seen bopp. ñoo la non non non man est affirmée dans la constitution. ñoom mosuñu wax ne la justice n'est pas ah, indépendante. bien sûr que si. yow laa wala donc yow da nga estimer la justice n'est pas indépendante dama ni la que ce soit le CNRI demal nga lire rapport bi. dañ naan la c'est affirmé dans la constitution dans les faits ça n'existe pas. non waxuma loolu dama ne yow. man maa ni la la justice sénégalaise n'est pas indépendante. pourquoi parce que les garanties yi nga xam ne les principe ak garanties yi ñu bind ci constitution bi et dans nos lois sont vidées pratique. suñ nee la l'inamovibilité des magistrats du siège c'est une garantie essentielle de leur indépendance am ñaari principe yu ñëw vidé ko muy bu ñu leen di affecté pour nécessité de service wala par intérim loolu mënuñu ci dara inamovibilité amatul contenu parce que magistrat du siège bi mën naa xëy suba nga ni ko nécessité de service dama lay affecté 80 à 90 pour cent et ça c'est dans les rapports du CNRI wala de du réforme de la justice de la réforme de la justice comité de réforme bu bu bu pour cent des magistrats du siège du siège ah sont nommés comme intérimaires ci poste ñuy occupé nga xam ne ñoom ils ne peuvent pas bénéficier de cette règle d'inamovibilité qui est le fondement même qui est la garantie essentielle de l'indépendance des magistrats du siège loolu amul ça n'existe pas dans les nominations tout est entre les mains du ministre de la justice qui définit et gère la carrière des magistrats ku ko neex mooy jàll ku ko neexul du jàll donc toutes les réformes proposées dañu ni loolu dañ ko war a dakkal donc mu dee yow maîtriser woo sa nomination à tout moment waxuma la le parquet l'assujettissement du parquet total complet au donc donc euh, vous êtes d'avis que. Mhm. dañoo war a président dafa war a démissionner du conseil supérieur de la magistrature. du question d'avis. le le ministre la chancellerie dafa war a génne loxoom. ci li nga xam ne moom mooy problème yi am. Euh, l'organisation de ce secteur là déggoo ma maa ngi ciy ñëw dañoo nekk ci dialogue. dialogue mooy loo xam ne y a pas de prédéfini loo xam ne dañ koo teg ba pare nit ñi di dialoguer sur un projet joxuñu les participants au dialogue ab projet de réforme. ni leen amandé leen ko déedéet dañ ni leen réfléchissez parlez moo tax le spectre est très large des magistrats jusqu'aux anciens détenus li ma la wax nii mooy les garanties procédurales yi nga xam ni moom moo nekk dans la nomination des magistrats muy inamovibilité tëbal nañ ko toutes les nominations sont entre les mains du ministre de la justice nga xamante ni ils ont plus recours au consultations à domicile que conseil supérieur ñëw conseil sup mënul lu dul entériner c'est le ministre de la justice qui propose ñoom amuñu benn choix daanaka benn choix amuñu donc la question ki se pose mooy comment garantir l'indépendance de la justice ñu ne inamovibilité bi dañuy fexe ba les mesures de nécessité de service ak intérim bi buñ ko supprimer wul ñu encadrer ko d'une façon boo xamante ni day am un contenu et de recours exceptionnel et que peut-être que les nominations des magistrats des sièges day échapper proposition bi sa échappe désormais au à la chancellerie à la chancellerie magistrat du siège parce que dama ni la ñu bë yu bëri am na et le but de ce dialogue mooy ñu teg toutes les possibilités qui existent boo demee France CSM ni ñu ko bindee président nekku fa mais ça n'empêche pas que jusqu'à présent les magistrats du parquet sont entièrement nommés par le ministre de la justice les yenn magistrats yi sont nommés par le conseil supérieur nga xam ni ce sont les magistrats du siège ak un collègue un un un un le le le kii les membres les autres magistrats du siège sont nommés mais après avis conforme yooyu yëpp son des mécanismes à explorer donc même dans la composition du conseil supérieur de la magistrature boo lire le dernier document bu ci USM defar. Union des magistrats danaan la UMS ñoom peut est-ce que ci document bi ñoom xëy na d'accord uñ avec la présence des membres ñu nekkul ay magistrats amuñ d'accord uñ ci du ñëpp ñoo ko wax bien sûr ñeneen ñi boo demee France les non magistrats ñoo supérieur dans la composition du conseil supérieur ñoom ñoo supérieur ñoo xam ne du ñu ay magistrats ce qu'on appelle les personnes qualifiées ñu ne le UMS dafa war a nekk une institution constitutionnelle dañ koy ériger en conseil en institution constitutionnelle mu am ñu supprimer le lien organique qui le lii au cabinet de la présidence parce que noonu lay demee c'est pas une institution boo xam ne elle est indépendante hein? on garantit son indépendance on garantit son autonomie budgétaire ñu utal ko siège mu am un secrétariat ba pare mu chargé wu entièrement de la gestion de la carrière des magistrats nga xam ni on limite les incursions de l'exécutif au moins pour les magistrats du siège léegi nu ñu koy defee est-ce que dañuy créer deux statuts pour le parquet ak un statut pour le nga xam ni parquet bi même le conseil constitutionnel français danaan la les magistrats du parquet ñoom ñëpp sont des magistrats ñoom ñëpp bénéficient de l'indépendance mais avec deux statuts différents danaan la le magistrat du siège l'indépendance est entière mais les magistrats du parquet sont soumis à l'autorité du hmm. ministre de la justice mais comme au Sénégal non na góoma xanaa bokkul je te demande la pour matérialiser cela est-ce que on crée de statuts au sein du conseil comme li mu amee France collège boo xam ni mooy nommé les magistrats du siège avec des garanties mooy certains postes les plus hauts postes c'est le conseil lui-même ki propose mais, la liste mais mais parce que conseil, parce que c'est le président de la, de la République qui préside le conseil supérieur de la magistrature léegi sa place léegi waaw le conseil supérieur de la magistrature moom mooy procéder aux nominations concernant les hautes juridictions waaw bu fekkee ne dañoo bëgg a une indépendance de ce conseil supérieur de la magistrature kay président de la République bu mu ci bokkate déggoo ma le débat sur am na dëkk boo xam ni ils ont expérimenté xam nga booy def sa genre de dialogue da ngay def lu ñu wax benchmarking am nañu expérimenté génne président du conseil supérieur la magistrature ñu toog quelque temps ñoom ñoo ko woowaat delloo ko parce que y a eu des dysfonctionnements et il doit être l'arbitre xam qu'est-ce qui est plus important c'est pas mu génn wala mu dugg qu'est-ce qui est important mooy que le président de la République n'ait plus les moyens d'influer ou le ministre de la Justice sur la carrière des magistrats du siège à tout le moins bu ñëwee ou bien ñenn ñi il les propose pas il n'a pas la possibilité de les proposer parce que ce sont les hauts magistrats ñi ci des c'est seulement après maanaam képp ku mu bëgg a nommer il faut l'avis conforme il faut ñu ubbi les membres élus entre les membres de droit ñu yokk la portée des membres élus est-ce que dañ ci rajouté ñoo xamante ni ils viennent d'autres secteurs pour garantir quand même bañ a def le corporatisme dañ leen di utal siège ñu am autonomie financière est-ce que yaa ngi gis c'est c'est tous ces changement là autour du CSM utal ko siège boppam tey CSM amul siège boppam am autonomie financière au lieu que la direction des services judiciaires du ministre de la justice di gérer la carrière des magistrats toute la carrière des magistrats et le régime disciplinaire tout est entièrement xam nga moo tax certains pays bu ñu ñëwee au CSM euh, certains régimes bu ñu ñëwee di dans le populisme euh, naan président de day day démissionner du conseil supérieur de la magistrature xam na lan moo tax souvent dafay indi une situation compliquée difficile à détriquer c'est-à-dire on met en place un gouvernement des juges mu dem ba dafay impliquer des blocages même dans le fonctionnement du pays non li nga wax xaar ma wax la pour tempérer le gouvernement des juges moo tax man la le traitement différencié le parquet par exemple ñii dañ naan la on veut un parquet indépendant est-ce que indépendance su parquet mën na am le parquet je parle bien. est rattaché à la chancellerie. non du question rattaché c'est-à-dire parler d'indépendance le le procureur il prend ses ordres du ministre de la justice. non le problème c'est pas ça il est beaucoup plus complexe que ça c'est-à-dire que sur le concept philosophique juridique de d'indépendance du parquet quand c'est posé on vous dit le parquet moom mooy mettre en œuvre la politique pénale définie par l'exécutif c'est ça le rôle du parquet est-ce que kuy koo xam ne mooy appliquer sur l'ensemble du territoire la politique pénale la politique pénale de l'exécutif est-ce que kooku mën na indépendant je donne un exemple. c'est bien de poser la question. suñu nee tey vous voyez que le changement. le changement bon fonctionnement de la justice boo déglu débat yi moo tax lay xew fee am solo. on pose les vrais débats pour un changement systémique de la justice définitivement su dee la politique pénale du président de l'exécutif mooy par exemple les les les la question des mines ñu bëgg vraiment. loo xamante ni ak la question foncière président de euh, l'exécutif décidé parce que c'est le président de la République mom la ñu élire ak les députés le pouvoir judiciaire a cette particularité de détenir un pouvoir qui relève de la souveraineté alors qu'ils ne sont pas élus donc crainte du gouvernement des juges yi mooy bu ñu leen enfermer dans ce corporatisme moo tax ñu ne la conseil supérieur dans sa composition est-ce que duñ ci inclure comme en France il y a plus de membres non magistrats de que que de que de, que de membres magistrats. et ces membres non magistrats kan moo leen di. les ils sont six yoo xam ni deux par le président de la République par le. Euh, comme ni ñu def au avec par le, le conseil Sénat. non non par le Sénat bu dee France la e les deux autres par le président de l'Assemblée nationale am na un membre du Conseil d'État ak barreau bi tamit nommé kenn mais en tout cas ils sont plus nombreux que les magistrats pour garantir ba pare ñu yokkal ko pouvoir ñu ne le conseil supérieur de la magistrature par exemple par exemple quand on veut contester certains magistrats nga saisir leen ñoom ils ont organisé cette possibilité de saisine par les particuliers de certains magistrats am ay décisions yoo xam ne buy affecter la justice ñoom ils doivent donner leur avis donc c'est ça qui est de se jouer à Diamniadio sur l'indépendance à partir d'une réforme totale globale du Conseil supérieur de la magistrature donc ma ne la on prévoit ndax dañ mesures nag nan lañ koy atteindre bëri na mais c'est important nit ñi comprendre le débat qui se joue beneen bi mooy la réforme les pouvoirs du parquet xam nga Sénégal lan moo fi am le parquet est surpuissant parce que le parquet c'est l'exécutif comme tel que l'exécutif domine le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire le parquet dafa am doole dans l'organisation judiciaire jusqu'à supplanter mënul alors même que enquête amul c'est-à-dire que yow dañoo accuser waa ji enquête ñu ba constituer un quelque chose de solide moom day viser yenn article rek ñu placer la su mandat de dépôt le parquet bu ko neexee nga am liberté provisoire son seul appel wala pourvoi bu ko defee day annuler sa liberté provisoire parquet mooy seet ban juge d'instruction la ñuy jox dossier parquet mooy seet dans les cabinets ci cabinet yi existé foofu contre parfois l'avis du président du de la juridiction parquet bi mooy décider ban juge d'instruction lay saisir selon affinité il en a un procureur célèbre de ce pays qui se glorifiait de cela danaan la le juge d'instruction c'est mon premier substitut parce que il exécute sama demande yépp loolu yépp moom mooy des garanties yu peser détention six mois ñu condamné la à un mois perte nga cinq et cetera donc dysfonctionnement yooyu yépp nga xam ni moo permettre empêcher le citoyen mu bénéficier de ses droits ba nga xam ni toutes les critiques contre la justice c'est à cause du parquet léegi qu'est-ce qu'on fait si on enlève les pouvoirs du parquet parquet parti la au procès partie la au procès jusque dans pour te dire les débats sont importants jusque dans l'imaginaire sax ba ci yëre yu ñuy sol c'est des débats en cours foofu est-ce que ça reflète suñuy culture est-ce que dañ koy jox un contenu et cetera boo duggee tribunal bu ñuy juger xam nga da ngay gis les juges de, du siège ñu toog noonu le parquet nekk nii yow ñu accusé la nga nga nga nga nekk décalé parti su nekkee parti au procès yéen ñaar yéen a waroon dell yàgg le parquet symboliquement gis nga ci agencement bi fi fi procureur di toog waru fa toog s'ils sont partis au procès te la justice doit être kii euh, moo la accusé fi nga toog nga waroon toog yéen ñaar ñëpp ngeen toll. moo ne y' a pas de prétention yii yëpp. c'est des choses qui se jouent à Diamniadio dans les assises garantie procédurale yi ñu def bu doon tey aujourd'hui xam nga on emprisonne à tout va mandat de dépôt mandat de dépôt nga dem dans nos euh, prisons ñu ne la le taux de remplissage c'est 400 pour cent wala 300 pour cent parce que tous les matins su doon les chefs de parquet les lieux de privation de liberté dañu leen a yónni le taux de remplissage je pense que bala ñoo jox mandat de dinañ ko seetaan. dinañu wut dinañu par exemple dinañu wut yeneen peine alternative. Ah, loolu pour certains délits mineurs la philosophie qui doit être la euh, le, le, le de la politique pénale fondement idéologique est-ce que on cherche la répression à c'est-à-dire que loo mën a def il faut de la répression comme actuellement wala on cherche la réparation au profit de la victime. mais lan nga xalaat ci euh, une proposition de Guy Marius Sagna qui qui qui qui propose une dépénalisation. du délit d'injure et de et de et de, de loolu xaaral ma est-ce mën na participer. ni euh, ñuy condamné majoritairement c'est pas des histoires de délit d'offense et d'injure dinaa ci ñëw dama la bëgg a wax lii c'est important parce que tôt ou tard yow di nga confronté wu justice te jàpp naa ni. eh ñaanal ma jàmm non tôt ou tard. yow ñaanal ma jàmm ñaanal naa la jàmm suy am ci seen régime lay am. waa jàmm jàmm xoolal. ñaanal ma ñaanal leen man dinaa confronter man justice. man mag justice dafa ñu ne. moo tax ah. man la on ne pas logique bi président Bassirou Diomaye fay wax. dafa ni on ne fait pas de l'inquisition ñëwuñu pour accuser ay juges déggoo ko fa déggoo ko fa dañoo ñëw pour essayer de poser les fondations bu ñuy invité détenus yi. il faut détenu bi wax la son parcours judiciaire pour que magistrat bi en soit conscient mu wax la son parcours injustice yi ngay suivre ñu denc la 6 mois pour condamner la 1 an ñoo xam ni peut-être ñu ngi ci tribunal non ñu denc la 1 an condamné la 6 mois. non no mën nañ laa bàyyi foofu 6 mois alors que bu ñu la jugé 1 mois képp lañ la. voilà voilà non donc tu as perdu 5 mois de ta vie. les conditions d'indemnisation dañ ko war a moderniser accès à la justice est-ce que boo ñëwee mës nga dégg Sénégal avocat commis d'office dañ ko mais pour que nit ñi accéder à la justice le service des greffes ak greffiers yi xam nga le ratio dañu il faut deux greffiers pour un magistrat actuellement au Sénégal il y a à peu près 545 magistrats waa 550 et il y a 400 et quelques greffiers donc il y a moins de greffiers que de magistrats alors ratio moo doon ñi nekk le double ana modernisation ban tribunal nga dem fekk fa digitalisation alors on est en 2024 da ngay dugg tribunal fekk fa rang bu méttee métti ñu naan la casier judiciaire la ñu wut kii ni la certificat de national kii ni la li mais il faut nga moderniser greffe yi yokk le personnel ñu ne la ñii dañu liggéey tribunal ay bénévole la loolu c'est une difficulté boo demee ci prison yi leur modernisation la réinsertion les peines alternatives est-ce que on veut réprimer à tout bout de wala on veut assurer la réparation victime bi lan moo intéressé l la sauvegarde de l'ordre public mooy la trop implication du du procureur wala on veut juste la réparation victime bu ñëw ñu réparer la sauf pour les crimes de sang pour les crimes de pédophilie wala pour les crimes de viol mais ñi si des ñëpp on assure la réparation par des mécanismes la plaider coupable ku ñëw ni maa def daa nga koy yóbbu instruction nee na maa def li ngay assurer mooy la réparation mais état mën na jël philosophie répression daal ni moom réprimer rek moo ko intéressé mais ndax victime bi waa yi ñu tëj dinañ dina fay xaalis bi mu yoreel kee yoonam nekk en tout cas donc c'est tout ça en tout